Eh, jàngeen jëf rafet land beex Sen TV bés bu jot nii lay demee ah yeew gisi suñu façon ñu ànd ak yéen gunge seen i activité waaye laata boobu nag dañ leen di jox dose bi ngeen yittewoo ci wàllum information te dama ci ànd ak El Hadj Ahmed Aidara El Hadj naka suba gi sant yàlla bu baax a baax eh, sant sant bay yokk di sant sant yàlla ak eh, di wut xaalis di wut xaalis waaw fu xaalis bi féete ah moo ma jaaxal de xanaa ah? xëy na Pape Bes moom boo ko gisee hmm. nee ko ana xaalis non man démb dama doon waaj a dox médiation seen digg da nga naan ma nee ko ana xaalis bi. non man xam xam naa lu tax ma ne la. Ah. boo gisee Pape Bes nee ma laaj ko ana xaalis bi. xaalis bi. su ma yeggee si kaw laaj ko xaalis. parce que xaalis bi coow li daf ci bëri. xaalis baa ngi ministère mi ngi palais mi ngi mairie ba mi ngi tes <laughs> mi ngi kawteef mi ngi. léegi léegi laajal bees ana xaalis bi. su su ma laaj bees xaalis. non mi ngi nii il faut nu nit ñi xàmmee pas bees mi may waxal chaque suba teel. wala ah, ni jëlal bees. ñu ne ko bees où l'argent. te il faut ñu jàkkaarloo bees si suba gi ñu wane ko quoi. bees na xaalis caméra bi ñu wane bees. bees nañu xaalis ngi ci na. Eh, ñu wax rek. ah. bees nañu wax ana xaalis bi. dañu wax Fabrice tey ci suba bi mu xëyee cinq ans nee na. Hmm. انا خالص بي خالص بي نيوخ بس خمنا كو خالص بي نيوخ بس خمنا كو فبس خمنا كو يو خم كو كين كين يوم سمير منصور يب خالص بي انا مو جرمت انا انا ميسا خمنا انا تم دفع خم كفال خالص بي نال نجين وا لو لو <laughs> دينا دينا تيدي كات خم كو فمي وخي جانجين جف مين كو لاي لاي خم خم كو فمي وخي خالص مو نجين وإلا كيكو يور دمو كوي واتي دمو كوي دور مو waaw wàcc bi nañ xaar bañ wàcc nañ wàcc bi Tapha Tine moo ne woon Balla Gaye bu lam ji amee dóorante kese dama lay dóor nga wàcc mais gis nga xaalis moom ki ko yor man amel ay dara naa ko dóor mu wàcc waaw ba tey baax na léegi après xaalisu lam ji bu génnule elage ki ko yor elage après ñëw ci xaalis bi dégg après ñu jël si xaalis bi sama bakkan laa ci teg de waaw ba tey ñu kon ñu doore ko li yéen a ah, xëy fësal ak li nga xam ne rek moom mooy la tribune ana lan la xëy fësal ci kaw tribune bi république bi dañoo mere Ablaye Wade mer ndax lan waaw moom daal Ablaye daal Ablaye daal fi mu nekk nii wéet na ci xeexam bi daal Ablaye daal kàddoom yi nga xam ne moom la yëkkati Ablaye daal mel na ni football rek hmm. moom ole mu am onze waaye moom tundung la tundung moom kese waaw même dix semis sax ñu mu waroon a bokkal terrain ak onze yee ñëpp ñëpp moo tax journal bi sam contre tous amul sa supporter maanaam boo déggee ma ne la amul supporter mooy même ci biir parti am di parti démocratique sénégalais. Mhm. d' accord parce que ka yor seen kàddu di Babacar Gueye ci kanamu journal bi di termine. Mhm. nee na ñu ngi jéggalu sénégalais. Ah, ci kàddu yoon démb. waaw kàddu yi nga xam ni euh, bees sax nee na mu woon démb naa ko wax man man maa ne duma ko wax rek. Ah. mais pas bees dane ma bi ma génnee dane ma lu tax waxoo ko ma ne ko mhm. waxuñu ko euh, te. dinaa la wax sax après ci édito wu Cheikh Omar Ndaw bi mu def ci journal bi ah, tey def na si gëstu tuddee ko ne luy njiig ñun ñëpp ay njàkk tous coupables ah ñun ñi sax non waaw bu ñuy chuté fin hmm. buy jeex bu jegee ay quarante trois hmm. dinaa la wax lan moo tax waaw hmm. coupable Ablaye daal ci kaw gàttal daal wéet na wéet na de te waa Bennoo Bokk Yaakaar a nga koy pareel ñoom tamit am cong goo xam ne maar di taali ak tontu ak defante ñoom waaw gis nga nag gis nga nag gis nga Bennoo Euh, lii rek sax dëgg dëgg fa yàlla nag waroon naa tax sax ba ñu bañ a tontu <laughs> laaj ma lu tax. ndax la parce que même ñi ànd ak Ablaye sax am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne njuumte am na. horreur la horreur la. daal ñoom. te bu horreur xasee ba am rek am na kon horreur la horreur la. kon ñoo war ñu war woon a mën a tontu. <laughs> Ah, yow kay luy tàkk. luy tàkk. même ñi ànd ak moom ñi ngi jéem a fay. fay yow mi nga xam ne yow yaay borom caq. nañu waxante dëgg. ñoom waa ñoom ñoom ñu jiite tey réew mi ñoom caq or lañ takk mhm. ñee baatu neen waaw comme que kay même ña ne ca baatu neen ma sax ñu ngi leen di jàppale yéen ci mhm. fayum lakk gi waaw yow kay kon faye la war may maam daan na ko wax borom jaqadu xeexaa baatu neen le populaire ñu ko gis waaw waaw le populaire kay Ablaye li mu góob daal fi mu nekk nii la ñu xëyee tey moom daal kàddu ya mooy def ay traces. waaw kay waay bu doon tool la daal dañ naan ab laay daal gàncax daal bant yi wow daal la góob. la góob ah waaw. ci kàddu ya dégg toolu ñoom Pape Bessie Guinée Bissau moom daal la góob lekk ab ablaay moom ginnaaw kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati jagleele ko njiitu réew mi. marti mm-hmm. Italie dégg nga ñi ànd ak président ñoom Mimi Touré naqarlu nañ ko Mimi nee na ñun suñu réew mi dafa am lu ñuy wege. Mm-hmm. tax ñu jàppee ñu ko waaye tamit dañoo jox cër. respecté ñu waaye itam suñ cosaan di culture ak boo nekkee gone. waaw li ñu naan dès le bas âge lañ lay yore ca diine li ab laay génne ci kàddu ci gémmiñam gii daa safaanoo ak loolu. Ah. Mbaye Ndiaye ministre d'État nag moom li mu wax moom daa leer. lu mu wax moom. nee na Ablaye Wade doit être arrêté immédiatement. Mbaye Ndiaye moo wax loolu. ah Mbaye moom Mbaye moom. may moom ne biir non non nee na ma non nañ ko dem téye ko teg ko loxo ba pare résidence surveillée ko. maanaam fat ko foo xam ne Ablaye dootu génn daal. maam la bëgg a tëj noonu. waaw maam daal la moom Mbaye Ndiaye daal loolu la wax daal ci kaw gàttal. dégg moo bëgg a def waaw kay waaw Diagne Naar mii ci Macky 2012 mhm. moom la mu xam ne rek mooy Ablaye la. Mhm. bokkoon na ci histoire u dañ ko ci daan bind. waaw waaye daal génn na ca daal. Ah, moom loolu la wax. <laughs> Ah, moom moom loolu la wax nag. Macky it moom am na lu tontu ci tontoom mi xëy na nañ ci ñëw. xëy na nañ ci ñëw ndax euh, laas dikk na ci. laas moom mel na ni ñu teg la ne rek. ñu ne diw mais tay dañ ko wara ray tek ci poto non waaw soldat yëpp taxaw ni waat bilal ci kaw gattal ñepp fa gëndo ci kaw tir groupé ñepp ci kaw waat bind ni ah maké nak ni mu tonto ablay moy tontum dal euh, ko jéppi lu mu def ah non moy tontum waaf rek ah def xam lu waaw xam nga yow nga wax ni dara ñepp yaakar ni tay jilé mom aduna tukki waaw mu ñew dal xol la ba ci yaak rek melni sax ku wala mu ne ni nii tey ah, ah, voilà soxna naata Samba Mbacke moom nee na Ablaye Wade daa war a jéggalu askanug Sénégal. waaye tamit dem ji euh, président Macky. moom loolu la waaw Habib Sy nag Habib nekkoon euh, directeur de cabinet mhm. nee na bii mooy bu njëkk Ablaye Wade wax dara ba pare. moom mu génn publiquement xam le ne daal d' accord ci. ñu ngi doog a weddi Ablaye Wade publiquement ci mbedd mi. loolu daal di Euh, ndax témoin dikkaat na ci moom témoin kay moo laa sax xaw na nañoo nuroo parce que jóg gi nga xam ne moom la ñëpp jóg daal dal ci kaw Ablaye la journal bi xëyee tey ak Macky Sall mi nga xam ni siisu na ci biir ruqam daal toog waaw ba tontoom li daal da ko tere yéeyu ci yàbbi non non ci yàbbiwu ci ñëpp wax nañ ci nag ñoom Aminata Touré ak waa Benno ak Babacar mm. Gueye ak ñoom Youssou Ndour rek nekk wax na ca ñëpp wax na ndax enquête tamit wax na enquête yéen a kaay mbind mee uute rek mais journal yëpp tey ñoom ñoo bokk maanaam lu ñu pont ah, ñoo bokk fu ñu fa waaw waaw mooy Ablaye Wade daal maanaam li mu yekk Macky Sall ak waa kër Macky mm-hmm. ak ni askan wi naawee ci kaw même ci biir PDS sax journal bi nee mm-hmm. am sedd daal lañ ci nemmeeku mm-hmm. Farba Senghor nag nekkoon moom jugu fa ah, waaw moom dafa nekk am phase ak Ablaye te nee na Ablaye Wade amul dara lu mu ñàkk daal war naa xëy naa perdre. fidélité le quotidien waaw Ablaye. moom ah, Bartal maam moom moom moom fu mu jëm. ak na mu def ca seis ba yëpp. danoo ànd sax ba daa ànd. Ablaye daal ci mbartal daal fi mu nekk nii daal tarxiis na daal ci kaw gàttal. waaw kàddu loolu la quotidien kay même ki nga xamante ni tamit waayam la àndandoom di sax Samba Mbow sax day rëccu na kàddu yi nga xam ne moom la Abdoulaye Wade wax. ci kaw Macky mais man li ma jaaxal mooy. waaw boobu ba léegi waxoo ma lu Ablaye wax ñu continuer maa ngi naan ci kàddu yi Ablaye Wade yi li Ablaye wax. Ablaye kàddoom yi moo moo taxoon de presse di def nii di bondé si. démb da doon yëg di wàcc. waaw libération. Abdoulaye Mbaye Peex moom. waaw mu seen TV Ablaye Mbaye Peex mu seen TV. waaw démb sax seetaan naa ko seen show ak El Hadj Mansour maa ngi leen di yàlla yàlla mu dal seen fan. waaw mm-hmm. mu dem di ko jëli mais même moom ci boppam démb ci émission bi sax wax na ko. nee na maa ngee Ablaye ba géej gi fer waaye nag li ablaay Wade wax dëkk bi yëpp la miti mm, Ablaye Mbaye peex ma wax loolu waaw naam nee na mi ngeex Wade ba géej gi waaw mais nag mu ne ne nag li Ablaye wax moom ñëpp la mitti ah. Macky Sall nag moom dàq na lépp loo xam ne nit ñaa ngi ko doon xalaat maanaam li ñoom mbay Ndiaye di di proposer teg loxo Ablaye Wade wala topp ko ci yoon. waa yooyu ndax plainte ko pour injure rek. dàq na yooyu yëpp waaw dàq na daal topp ci yoon Ablaye daal. Euh, Macky moom yooyu nag sëñ Mbacke njaay nag la mu jàpp rek mooy adduna bi yëpp ñoom la ñuy ceex di leen ree. bàyyi coro bàyyi coro. moom loolu la coro nan la sax. mbaar coro mbaar. waaw coro mbaar Ndiaye. waaw moom bàyyam nee na bàyyam nee na. réew mi yëf yi moom lañuy rey matinal ñay matinal nuyu de len yéen waa Walf ñu pousse ñu ngi jaajëfal grand place lu mu wax grand place ñew ak ñin ba tay ji ci ganna yi nga xamni mom la Abdoulaye wad di jëfëndiko ci guerre bi wa dem tëdd yoon wa wa waa démb tribune mom la bind wa non conventionnel xam nga guerre wa nga guerre dafa am dafa yoon bu baax dafa am yoon de goñu na la ñuy naawee para ci suuf kenn amul droit wàcce le ah nañuy wati, kenn amul non <laughs> yooyu wati, yow da nga yak da nga foog ne guerre lu mbir mi miti miti. ah je man dama je croyais que booy. booy rek am nañ droit dóor nga jëm suuf non dafa am ay convention yoo xam ne dañ koo signé. lu guerre ba miti miti miti amoo droit yow génn loolu nga xam ne moom lañ signé ca way mbootaayu xeeti. lu xeex. Ah, yow xanaa bëre bii sax. bëre la amoo droit rek xàcc jubal ci nit ki te ay eh, yow bëree amul matt bi. amul dóor ci loos gisoo bu leen arbitre wooye ne leen kaa leen taxaw danaan leen lii moo leen di boole moo leen di séparé mooy sifflet bi nga gis mbëri ne nii doo gis bu ñuy wax ah, yow dooy dem làmb ja moo ah, ok ah, amul dóor ci loos waaye yooyu yëpp moom moom amul weq amul code zone ana point génn saa koy avertissement nga ne waaw ñu làmb làmb ki ne la pare nga ne la waaw pare nga mbir ma door làmb ji sàjj non xeex boo gis dafa am ay convention dégg léegi nag Ablaye kon moom jëfandikoowul daal la guerre ba santaane. moo tax ñëpp gerte moom lan moom. ñëw ak ñun tey ci PDS yi nga xam ne sax dañoo bàyyi Ablaye. Ah. waaw dañ ko bon bàyyi wuñ ko quoi sànni ko ne ko àndatuñoo yow waaye niñ ko bindee daal mooy ci kaw gàttal. kàddoo mi daal d'accord duñ ci mën a. waaw amul kenn ku ko wéccale bàyyi nañ ko. réew mi waaw kay ñëw na naam ci mbiru Ablaye Wade moom ak sëñ Modou Kara mi nga xam ne taxaw na ngir jàpp ci. waaye itam Amnesty International seen rapport yi nga xam ne génnee nañ ko daal. Mhm. ah am na luñ jam Sénégal de manifestation yi nga xam ne yi nga xam ne dañu koy tere. Ah. waaye itam CREI bii ah Amnesty International daal wane na ci tamit njàqareem daal. wane na ci njàqareem. Amnesty moo def loolu. le soleil lu mu def. le soleil ñoo ngi ci conseil des ministres bi nga xam ne ña ngi ko doon amal ci Sédhiou. waaw Sédhiou ba. ñaari téeméeri milliards. deux cent. deux cent. milliards waaw. pour lan noonu. pour Sédhiou. ah <laughs> Sédhiou nag war na war na faa ba faw. non non ñii sax lu mu bon bon gis nañ seen xaalis. mais ñin laa wax ñin xaalis bi anam te góob de. El Hadj Sédhiou deux cent mille <laughs> deux cent milliards yi. ñëwal ci tribune bi rek Sédhiou <laughs> deux cent milliards. moom leer boobu xaalis ba génn na. waaw. Hmm. deux cent milliards leer na dañ ne woon huit cent soixante cinq. waaye xam naa ci waxtaan ak yooyu. ak président léegi yegg na deux cent milliards. dégg hmm. mais ñoom seen xaalis bind nañ ko ci kay mais ñun suñu xaalis anam. yow bi nga laaj ak gis ko. Cheikh Omar Ndaw nee na bi ndax jàngat ba nga ba nga tegoon sa baaraam. non Cheikh Omar Ndaw nee na. waaw. Euh, boo gisee mu ne la ñun ñëpp coupable lañ. waaw waaw. parce que taskatu xabaar yi heure bii bu fekkul woon moos ñu génnee kàddu Ablaye Wade yi yooyu kon xëj na ampleur bii mu am du ko am. Hmm. luy ñëpp ay njàkk waaye nag ñetti télévision ñoo fa nekkoon. muy Walf 2S ak Sen TV. te ñetti télé yooyu bi ñu ñëwee waxtaanuñ seen biir de. waaye ku ci ne toog nga sa roq xam ne lii. waroo koo génne. waroo koo génne te ñetti télé kenn génnew ko. nga sikkat waaw. waaye nag vidéo bi malheureusement nee na waa nga ci mbedd mi ndax feeñ na ca internet. waaw sa bi. waa léegi ana Sénéra. Hmm. Cheikh Oumar wax de nee na ana Sénéra. doo ko gëstu sa ginnaaw xool daf mel def la. nee na bu doon group des médias la ba léegi émission bi. gën a ñàkk fayda wala bu gën a ndaw. kenn waxatu ko dal kenn waxatu ko. mu teg ngeen ci teg na ci ne xëj na dañuy xaar fii ak seen ñetti weer seen avis yooyu ñu génn. Ah. xeetu teg bët la rek. waaw kay nag. xeetu teg bët ma de. waaye xam nga liñ naan pourquoi ça. Hmm. def fi lu baax. te ne kenn du ko wax pourquoi ça. déggoo boobu. déggoo boobu non non non ci revue de presse bi laa ko riimee ba mu neex. parce que dañ ma koy wayal moo tax. dañ la koy wayal ci kii bi. Ah, waa ci mouvement bi. Hmm. <laughs> mouvement Pape Diaz Diba bi. le mouvement. ah bon. waaw ah, tëjal rek tëjal rek affaire la. yii yëpp du ma ko kii moo tax. non loolu dañ dañ dañ ciy teg suñu baaraam sax ba. li nga xam ne moom mooy suba ci àjjuma ji. aywa eh, jaajëf mu nekkoon ne laaj Ahmed Aïdara ci li yéen a kaay xëy fësal nes kii 7h45 ma dikki fi jukki leen xibaar yi ba mu jàppandi ci kàllaamay koñ.